سمي الله أما دعوتك مثلي ndax ñu mën a wax daal waaye nag den nag Cheikh Ahmed Tidiane mënatu den nag kay nag ñaawal boo xam ne bii ak njàmbaaram dépassé na frontière yu Sénégal waaye wër na adduna dem na ba Makka may wax ci kanam koo xam ni ci keroog ba sànq ba nelawee si fi Abu Bakar si xale bu mag ba jaboot yëpp jaaxle magat ndaw bu jigéen mu xatam ñëpp keneen koo xam ne kii itam man nii day mën na maa dund li ma xam ci moom nag lu mu ko bañ ñeme ba tax ko ca mooy ca kanam su lànkee it mooy na ca kanam lànk kon nag su ma amee nag tey nag muy sama sàng di suma kili di ñu kilifa yi ñëpp yàlla de yow làng boo ne làng boo ne su ñoo la gëmee yàlla war nañoo gën a ko seen li ma xam ci yow nag doo dugg dara te amoo ca ndam loo dugg rek yàlla def na ca ndam la ca des nag mooy xam-xam bi la yàlla jox fa tabaarakallaahu ñépp nangu nan ku la sopp nangu na lii ma wax ku yàlla nattu ba sopp la nangu na lii ma wax kon nag li mu woote tey yow soo woote woon tey kuli koronu fekk la soo toogoon makka woonu sunu amulee paas daanu tànku fekk la kon nag lii nga nu woo dafa yomb yow loo ñeme te sunu jàqee ci yow la ñuy ñëw sunu amee problème ci yow la ñuy ñëw yaay fab téeméeri million cib jant balaa ngoon mu nekk médd yépp jeex jox ko say bokk jox ko taalibe yi jox ko néew yi doole yi yow day sab taalibe war naa yomb nag wax dëgg yàlla sëriñ boo xam ne bii xam-xam ba rafet na te dala koy jóor ba boo yóbboo jariñoo xam-xam ba su la bés dabee mu yëkkati alal ju du jeex yónnee la ko te du ko damoo

teraangay sëriñ bi toog mës naa sotteku ci yow ñu marqué sëb jëdey xam naa ni fii ñu bari daañu leen marqué tey waaye nag si nu ngay sant yàlla de soo melul woon nii jaaxal nu soo melul woon nii it daanu da daanu da daanu réer ndax sang ba sa baay Seydil Aboubacar si xalifa ba kenn yaru la moo la yar génnoo ci keram ba na gën kon sa xam-xam sa yar sa laabiir sa bëgg njaboot saw fit sa njambaar lii xéewalati ñun xéewalu Sénégal la it xéewalu nga kon nag li ci des su ma toppee sama yéene ci moom ak li ma bëgg a wax ci moom dinaa ko commencé tey 4 heures fi la ñuy fekk te xam naa it ni moom ngeen bëgg a dégg moom ngeen namoon mom ngeen ko di gis kanam fa tabarakallah yalla ngi ni indi na ko sunu kanam